aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci ñeent fukkeelu jaraay ak juróom-ñett ci téereb Xalimag ak leer noo ngi ci bunt bi ñuy waxtaanee sant gi Sëriñ Tuubaa di sant ci ay mbindam ci biir bunt boobu noo ngi ci toll ci xasiida ak minanul baaqil qadim ñuy tudd ay bayit yoo xam ne sëriñ bi da ciy wax may ko yàlla may mu di ko ci sant bokk na ci bayit yooyu sëriñ bi nee saa su ma bindee walla ma jàng aw araf dinaa ci làqi xéewal goo xam ne dees koy dénk araf woowu moo tax araf yépp am naa seeni mbégte te lor du jëm si ci man am naa njariñi àdduna ak alaaxira ci lu dul benn nëx-nëx njub ak leer ak ngërëm ak barke dikkal nañu ma dikkin wu ma bett ci tàgg gi may tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moo di ida katabtu aw qaratu xarfa xustumu nan tuudacu daaka alxarfa liya busaaraatu alxurufi tura wala tuwajjihu ilay dura liya almanaaficu bila akdaari fi daari tii amnan wa tilka daari hudan wa nuurun wa ridan wa baraka fa jaani fi mathi faxri mudrika maanaam li mu doon séentu ci tagg yonent bi salallaahu alayhi wa lu ko gën a kawe fuuf la mujj am ba loolu sax da ko ci bett noo lool maanaam lim ci mujj am daal da ko bett lool ngir kawe gi mu kawe ak rëy gi mu rëy loolu di tekki rek sunu borom xeetu pay gi mu fay képp koo xam ni sonn na ko ba tey xasida gi di Minanul Baaqil Xadim am na wax ju ci sëriñ bi wax indi ko ci lu bari muy gane goo xam ne da koy gane boroomam donte ñëw na ci yeneen xasida it waaye mel na ne ci Minanul Baaqil Xadim la gën a bare daa wax ne gane naa yàlla mi aji tedd mu jox ma ci weeru sawaal mayu rëy ba gàcceel xam-xam yi ak alal yi weeru sawaal mooy weeru kori mu ne sunu borom defal na ko ci loo xam ne deesu ko tëkkaleeg benn xeetu xam-xam waaye deesu ko tëkkaleeg alal ngir yaatu gu may yooyu yaatu ba tey mu wax ne gane naa yàlla mi aji tedd ji mu jox ma ay bernda yu teey maanaam bernda yu neex te ci sama jëmmu lay gindee ña ca kër yaa ak ña ca dëkk yee ñëpp maanaam daal sama jëmmu sunu def na ko muy loo xam ne ni ci lay gindee ñëpp mu dellu wax ne gane naa yàlla mi nga xam ne te yàllal na ma ay bernde wa matal na ma loo xam ne xutbu yi wonuñu leen ko maanaam xutbu yi teguñu sax bët loolu day firnde rek sëriñ bi ay mayam ni mu yaatoo ndax bu nu gisee mu naan qaaban maqaami an baaxil karim wa innani abdun xadimu laa yarim mu ne moom maqaamam fàddu na ci kenn di ko xam ku dul sunu boroom maqaama moomu nag di may yi ko sunu boroom jox la wax ne sunu borom lim ko ca wammatal eh, amul kenn ci kilifa yi ci xutba yi koo xam ne wanes na ko loolu ba mu koy sàkku sàkkaa di ko am kon noo ngi yam foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.